على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi yoo jaamu te waruñu ko bokkaale ak kenn di ko sant ci xew lim ne defal liñ ko mënula limal ba jeexal ko di seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhaanahu wa taala te war ñu ko bokkaale kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la soppeem la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam booba gis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp di leen dénk mbokk yi ragal borom bi subhaanahu wa taala comme nim ñu ko digalee ci ay bërëm yu fas ko ci alquranul karim mu ne ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rek bu leen dellu si ci man lu dul da ngeen doon ay dëgg-dëgg julli mbokk yi suñu xutba yi tey ñu ngi koy fas yéene amal ci asana al hijriya mooy atu légir mooy at woo xamante ñu ngi koy dugg mu at bu bees di atu gàddaay di atu jullit ni mu am histoire am ak i jàngatam li ci njëkk mooy at bi nga xamante ni moo nekkoon 1446 moom de féete nañu ginnaaw ñu dëgmal at bi nga xamante ni mooy 1447 hijriya muy benn at bu nar a dolleeku ci suñu dund waaye di ay at yu weesu ci suñu dund at bu weesu suñu dund buñ ko waxee mooy at woo xamante ni wala at yoo xamante ni ëllëg buñ demee suñu kanam borom subhanahu wa taala dinañu ko xisaab mbokk yi atu jullit ni lu jiitu ñuy am calendrier li ñu daan datee mooy ay xew-xew lu mel ne ñu ni amul fiil atub ñay ya wala atum bekkoor ya noonu lañ daan date ci islaam waaye bi ñu demee ba ci jamonoy omar ibn alxataab radiallahu anhu ki ñuy wax abi moussa al ashari radiallahu anhu dafa ñëw ci omar ibn alxataab ni ko am na fi am nga fi ay bataaxal bataaxal yoo xamante ni xamuñu bu jiitu xamuñu bu ci topp ndax amul dat fasaasa la Omar ibnul Xattaab woote ab ndaje saxaaba yi yépp ni leen faw ñu amal date calendrier lu jiitu loolu borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ci alquran mu ni inna iddata shuhuri inda allah ithna ashara shahran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatun xurum dalika diinul qayim yàlla moo ñu wax ni li ñuy wax at moom ngir mu mat ko faw fukki weer ak ñaar dafay tëdd ñu soog ni at mi mat na wante weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale ñaata fan ngay wàññi soog ni weer yu mat na biñ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tàllal fukki baaraamam yépp ni nii daal di koy bankaat yépp tàllalaat ko bankaat ko mooy ñaar fukk mu tàllalaat ko banque benn bi muy vingt neuf li tax ba mënuñu am calendrier fixe mooy dañu demaat ba benn jamono ñu séntu weer ndax yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yasaluunaka anil ahilla dina la laaj lu jëm ci wàllu weer waaye mu ne ko qul hiya mawaqitu linnaas xamal leen ni leen ni weer de lu ñuy xamtu la dañ koy séenu ba ñu demee ba séenu weer jot ñu séntu weer di wàññi di wàññi ba muy juróom-ñeent gis ñu weer bi ndax waruñu woon mën a doylu rek ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam leen waxoon ci juróom-ñeent waaye ñuy laajaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa in ghumma alaykum fa kammilu iddata sha'ban ashrun bu fekkente ne dafa lënt dafa muuru weer bi dafa muuru ba mënu leen kaa gis na ngeen matal fan weer kon bu ñu yemoon ca jàngale bu njëkk ba rek dañuy am calendrier fixe waaye yemuñu ci jàngale boobu liñ ci namm mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jàngale weer waaye at yàlla subhanahu wa taala moo ko wax ci alquran ni fukki weer ak ñaar lay doon bi Umar ibnu Xattaab dajalee saxaaba yi lim leen laaj mooy ci ana ci ban weer nag la ñu war a tàmbalee ñun suñu calendrier war a nekk suñu premier mois saxaaba yi ku nekk commencé indi sa xalaat am ñu ni nañu def comme ni waa Perse yi di jàppee seeni calendrier buur bu faatu rek ñu ne ah buur bii de ba mu faatoo ci def na nangami at après keneen ñëwaat nañ ko date ci noonu ñu ni déedéet ndax ñoom yoon saa salaam jàngaloon na leen ne xaaliful yahud wa nasara na ngeen wuuteeg yahud yeeg nasaraan ci ni ngeen di jàppee seeni mbirum diin ñu toog ba si yàgg ñu laaj kenn mu ni tey ñu ko jàpp kon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla yónnee am keneen ku génnee xalaat dal ni est-ce que duñ jàpp tamit jamono ji nga xamante ne ci la yonent sallallahu alayhi wasallam gàddaay jóge Makka di jëm Madina Omar ibnu Xattaab daal nañ jàpp boobu ndax fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jóge Makka di dem Madinatul Munawwara mooy lii tàqale diggante neen ak dëgg ndax ca lañ nekkoon ñu waral fa génne moo nekkoon ashirk wa ibadatul asnaam bokkaale ak jaamuy xëram fan jëm nekk al intiqaalu min baladi shirk ila baladi tawxid loolu mooy al hijra jóge ci béréb boo xamante ne dañ fay bokkaale yàlla nga dem ci béréb boo xam ne baladu tawxid la loolu mooy gàddaay yonente bi sala omar ibnul xattaab daal ne nañ nañ jàpp kon boobu dat ndax omar bokk na ci liñ ko xamale woon lañ ko woon dànkantele mooy al faaruq alfaaruq mooy alladi yufarriq bayna alxaq wal baatil mooy koo xamante ne dafay tàqale dëggan dëggan dëgg ak safaan kon Omar ibnu Xattaab moo jàpp boobulee dat ne nañ jàpp kon ni suñu calendrier ñu ngi koy commencé jàpp ci gàddaay biñ jógee Makka jëm Madinatul Munawwar mu des nag di beneen laaj mooy ana ban weer nag la ñuy tàmbalee ñu ni nañu jël shahru Ramadan. ndax ci lañu wàccee alquranul karim keneen génne xalaat ni nañ jël shahru rabia ndax rabia ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam génne gane àdduna te ci la jóge tamit fii di Makka jëm Madina ñu ni nañu jël shahrul muharram mooy tamxarit ndax shahru muharram bi ko féete ginnaaw mooy shahru zul hajj mooy tabaski tabaski boo tàmbalee ci muharram ba ba ngay egsi waat ci ak weeru tabaski lépp luy arkaanul islam ponki islam yu juróom yi day fekk mu dajale ba tey mujj mooy aj ñun nañ jàpp li nga xamante ni moom mooy al muharram muy weer wu njëkk ci jullit ñi mbokk yi nag lii ay settantal bi ci war di am mooy jullit dafa am lu mu moom war koo xam war koo def yitte mooy ni ci taarixul hijriya yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi sàkk asamaan ak suuf bii di borom moom moo ni lii dee leen ci wàññee lii di at yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ne leen jàpp ni lii la ñu war a wàññee atu julli ñi ak seeni weer borom subhanahu wa taala mu ni inna iddata shuhur inda allahi isna ashara shahran fi kitabillah mu ni shahri yi fukk ak ñaar la waaye am na ci arbaatu xurum arbaatu xurum yi lii di muharram daf cee bokk muy weer yi ñu wormaal muy ñetti weer yu toftaloo bii di zulqaada mooy ba nekk ci ginnaaw tabaski ak al zulhijj mooy weeru tabaski bi ak al muharram mooy tamxarit bii ñu dugg benn mooy ba ca tàqalikoo ak ñoom ba sësul ci ñoom moom mooy shehru rajab ja'alaha allah subhanahu wa taala miqatan lil aami kulliha yàlla subhanahu wa taala mooy ki ko tënk ni lii mooy li nga xamante ni moom la doomu aadama yi waxul arab kese wala jullit ñi kese waaye doomu aadama yépp ci lii lañu war a tënku ngir di calculer seeni weer ak seeni at aqul ma samitum wastaghfirullah li wa lakum lisaa'iril muslimina min dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ci taxawaay ñaareel muy duruus wala ibar wala ay waqafaat ci li nga xamante ne moom mooy sana hijriya comme ni ñu ko waxee suñu njëlbeenu xutba ay at la yuy jàll waaye bu ñu waxee at wuy jàll war nañu wax xalaat li ñuy wax muhaasabatu nafs kenn ku ci nekk war cee xisaab sa bopp weer mbokk yi li ci doomu aadama yi war a njëkk di jàngee laataa mu ci xisaab boppam mooy ana naka la ñuy toppee weer weer bokkul ak ñu ni am nañu janvier février mars loolu bokk la ñun suñu calendrier islam ni ñuy jàppee suñu calendrier weer yàlla mu ni wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal urjunil qadim jant bi moom fa mu fixé wala fixé wu waaye weer bi da koy wër bu ñuy wax séentu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na day fa bokk ci sunnaam ñuy séentu weer boo séenoo weer ci timis mu fenk ñu ne weer bi de fenk na mooy sa premier jour nga tàmbalee wàññi la nga cay tàmbalee di xisaab sa bopp nag ci weer bi mooy ni ba mu demee ba toll ci ayyaamul biir ci fukki fukkeelu fan bi ak ñett jëm fukkeel fan ak ñeent jëm fukkeel fan ak juróom bam la fiy fekk ndax daa nga ko woor ci wàllum koor no comme ni ko yonent saa salaam jàngale nee na ñetti fan yooyu képp koo xam ne sàllom ko di ko woor ci weer wu nekk mel na ni ngi woor nga weer bi yépp yow kon sa xisaab bi ngay xisaab ci séntu weer mooy ndax daa nga ñetti fan yooyu daan la fekk daa nga ko woor ngir mën di bénéficier ci lii nga xamante ni mooy ay ngëneel ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis mu nii li ñuy njëkk xisaab yowmal qiyaamati ci jaam bi mooy julli julli farata ya kon la nga war a xisaab sa bopp ci say farata mooy ndax julli farata yi daa nga ko julli fii waqtiha ndax biñu laajee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayyul a'mal ahabbu ila allahi taala ana jën jëf mooy di gën sa yàlla mu ni julli ca waxtu wa kon yow xisaabal sa bopp ndax julli yële fii fekk daa nga ko julli ci waxtu wa ñaareel bi mooy nga xisaab sa bopp ndax julli ya daa nga ko julli ca mbooloo ma loolu muy muhaasabatu nafs fi salaa wa fi l ibadat farata yi yoon saa sam ne loolu la ñuy njëkk a xisaab bu dee ne xisaab nañ ko gis ni am na ay manqué manqué yu ci am ci li ñuy soog a xool say sunna mooy tatawwa julli coobare yi nga daan julli wala wooru coobare yi nga daan wooru bu dee ne daa nga woor ay wooru coobare wala ay julli coobare wala aji coobare la manqué woon ci farata yi loolu moo koy mottali bu ko defee nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñuy texe yàlla nañ ci yàlla boole mbokk yi li tax ba tey ab jullit war a së yittewoo ci xam lii di weeram wala lii di atam mooy weeru koor amul ci beneen weer buñ koy jàpp bu dul bu jotee te fekk dafa topp da nga topp li ko tale muharram ba ba nga egg ci shahru ramadan nekkul ne ne chaque janvier ci la ñuy woor weer weeru koor wala chaque février la ñuy woor weeru koor kon ko sa xel war naa dem ci ni weeru koor yàlla mu ni da nga koy séntu day jot nga soog koo séntu woor ci sa weeru koor ñaareel mooy aj ajit nekkul weer bu la neex ngay dem aji ji déedéet weeru aj soo xasee ba génn ci weeru koor yi yaa ngi dogg ci yaa ngi soog a dugg ci weer yi nga xam te mooy weeru weeru aj te bu benn bu ci nekk borom soota wax na ko ci alquranul karim ci ay teqantal ci weeru koor wala weeru aj kon dafa bokk ci mandarga bi jullit bi war di séntoo weer mooy xam ne weer yii nii dañ koy séntu ngir jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla moo ko waral ci jaam bi te ci jamono jooju noonu dong ko mën a defee mu bokk ba tey ci li ko jullit ba war a yitteelu mooy ki nga xamante ne dafa dem ba weeru koor jot mu woor dog ta tay ko kooku dafay kafaara léegi kafaaraam nan la koy fayee ndax danaan damay bàyyi ba janvier ak février ma boole leen shahrayni mutataabi'ayni déedéet da ngay séntu weer wi bañ ni weer wi feeñ na ci beneen weer bu dul weeru koor nga tàmbalee fay ñaari weer yoo xam ne doo ko dagg ba mu mat nga soog a arrêté muy sa benn kafaara kon mbokk yi ab jullit dafa war a sittewoo lii nga xamante ne moom mooy sana hijriya ngir jaamu yàlla yi nga xamante ne moom la ci borom subhanahu wa taala dëxëñ yàlla yàlla jéggal nag lépp loo xamante ne def nañ ko ci weer yee weesu waaye yàlla nangu ñu lépp luñ ko ci jaamu te at bii ñu dëgmal mu mel ni dara xewul ci ñu bari ci jullit ñi di ko weccoog beneen weer woo xamante ni ñu ngi koy feetewu te du suñu weer da suñu weer weeru bokkaale la ak weeru jaamu xëram kon ana jullit bi nag ci war a yitte woo xam lii nga xamante ni moom mooy weeram la ca nekk say jaamu yàlla yépp nga profitoo ci ngir yàlla nangul la ko nga bañ ko weccoog weer yi nga xamante ni bu ñëwee lang cay def lépp ay bokkaale la te borom saa taala nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo joxoñ mu ni ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk la takunanna min al xaasirin mu ne gis nga bis boo ma bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla joxoñ ni ko soo ma bokkaale lépp loo doon jëf day màbb asamaan nag ñun ñi nga xamante ne ay nit ordinaire lañ kon yitte la ci jullit bi moo xam li nga xamante ne moom mooy sana hijriya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله